jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen jaajëfal ba tey ñu ngi fii ci euh, daaray euh, kokki bu sëriñ Ahmed Sakhir Lo ci ziar bu am solo bi nga xam ne moom lañ fi amal waaye nag ñu ngi toog ak euh, sëriñ Alioune Badara Ndaw di ko nuyu bu baax di ko ziar di ñaan suñu borom subhaana wa taala mu fayal ñu ko ndax yëkkati na kàddu yu am solo jëmale ko ci mboolem umma islam yëpp te yaakaar naa ne buñ ko dégloo ak xel dinañ bokk ci nga xam ne ñooy innaa nahnu nazzalna zikra wa la xaafisun xam naa dañ mu nuyoo ak télévision ma Fatihul Bichri ak Touba Vision su ko defee ñu daal di wax ak moom ay tuuti kaddu yoo xam ne rek dañ koy daal di jëmale ci ñi nga xam ne ay jullit lañ te war a jëriñoo alquran oustaz ñu ngi lay nuyu di ñu bàyyi la ñu ngi leen di delloo nuyoo ci waa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu di ñaan borom bi tabaraka wa taala liggéey bu sell bi yàlla na ko suñ borom nangu bind ci ay ngëneel bind ci ay yiw bind ci ay tiyaaba alhamdulilahi rabil alamin yaakaar naa soxna si alquranul karim maa ngi doon wax léegi ne moom rek mooy li mën a boole doom aadama yi ci kaw yoon woo xam ne yoon wu jub la yoonu jàmm la yoonu ngëneel la yoonu yokkute la ko defee dafay baax lool ci di fàttali leen nag ci wàll yi nga xam ne moo tax a jóg alquranul karim suñ borom subhanahu wa taala da ko wàccee pour mu nekk marjaiya référence jullit ñi yëpp ci penku ak xarfu ndeyjoor ak càmmooy bokk na ci liggéey bu rëy bi nga xam ne moo tax a jóg alquranul karim boole askan wi ca nanuy gisee mu nekk benn gis-gis ca nanuy fase mu nekk benn pas-pas boole leen benn jikko boo xam ne moo leen di may ñu mën a jikkoo jikko yu rafet yi am ca gis-gis ne lii mooy jikko bu rafet jikko woo itam jikko yi nga maanaam dindi it jikko yi nga xam ne mooy jikko yu safaan yi am gis-gis bu leer ci ne jikko yi kat mooy jikkoy safaan yi nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala moom la bëgg dindi ci xeet wi ndax mooy lii gàllankoor seen wu nekkin en tant que famille di gàllankoor seen wu nekkin en tant que société di gàllankoor seen wu nekkin en tant que état bu ko defee alquran loolu mooy di ko taxoon a jot moo tax suñu borom subhanahu wa taala tuddee ko ne inna haadihi ummatukum ummatan waahida xeet wi nga xam ne moom lay defar wenn xeet la conception ñoo koy bokk pas-pas ñoo koy bokk ba tax na ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala eh, hadaf maanaam jubluwaay bu taxoon mu wàccee téeram bu màgg bi ñu ngi koy ñaan mu dimbale ñu yokk ñu Euh, ci xam ko ak jikkowoo ko ak melowoo ko ba ngëneelu alquranul karim mën a feeñ ci sunu nekkin yomb na suñ borom yàlla ñu ko yàlla defal xaw ma nag heure bi ba ñaata minute ngeen ma àkkoon ak yooyu wala lekk temps bi. waaw ñu daal di jeexalee ñaari laaj la bi toll jamono bi kenn ku nekk di jéem a faat sa morom kon dafa mel ni ki jaaruwaay bi ñu war a jaar mu di alxuraan dañ koo bàyyi nan la ñuy def ba dellu si waat ci alxuraan bi nga xam ne moom mooy solution ak alhamdulilahi rabbil alamin laaj bu solo la ku xam na àdduna ni mu yëngoo ni mu jaxasoo gis nañu itam jikko yi ni mu safaanoo ba tey jii nag yaakaar a ngi fi ndax liggéey yu mel nii nga xam ne moo nekk ci biir daara ji jàpp naa ne mooy meilleure méthode boo xam ne bu nu ko jëfandikoo incha allah daañu amal société boo xam ne alquran dana defar seen i xel defar seen i jikko defar seen i ruux ñu tasee ci pénc mi mu mën a nekk daje woo Opa!